ñuy jëm ci benn jigéen bu ñu war a jël yow mu am lu gàkk ci yow ñu koy wax ci yow mais bu ñu neexee bu ñu tegee mën la déw nga ne ah mën la xanaa déggoo li ñu wax ci yow nangam nangam def nga ko demal nga leeral loolu ba pare Ousmane Sonko loolu rek la def loolu di diffamation loolu dàgg santé politique la loolu da ngeen bëgg dara yéen ñaar di ko wut ku nekk di seet gàkk bu nekk ci moro boo moroomam pour wan ka nit ñi pour ñu bañ a votel kooku. yow tax ngeen bëgg ko nangul Ousmane Sonko mais du ngeen ko nangul ñeneen ñi aussi suñ koy def. Ousmane Sonko ay galgal mais rek ngeen ne non dañ ko bëgg éliminer dañ ko bëgg def mais da koy nangul. mais bu Sonko di. mais Ousmane li mu def keneen yëpp. jël nañu ay plainte di ko topp te loolu mosta am. Mm-hmm. ñun waxuñu dañuy porter plainte kenn ñun est-ce que nit mos na def dara ci Ousmane Sonko ñu ni non Ousmane porté ko plainte mm-hmm. parce que dañuy jàpp ni dagg sante politique la wax nañu fii Ousmane lu nekk salafiste la mm-hmm. est-ce que salafiste la c'est faux ça ne s'est pas vérifié mm-hmm. diffamation la wax nañu Ousmane dafa am doom xaw ma fan c'est faux c'est pas vérifié diffamation la Ousmane Sonko li ñu ko diffamé xanaa bu doon diffamation kon sans diffamation contre deux la alors loolu moo jaaduwul ba pare li lay wan ni acharnement la mooy justice dañu woote ñu bàyyi justice def liggéeyam ñu ni def nañu pourquoi ci salle bi mu toog mu kontaan ni il est satisfait son honneur e lavé ba pare génn defaat appel c'est-à-dire dafa dem ci ñi nga xam ni ñoo ko yabaloon ñooñu ni ko hey yaa ngi fecc waaye la ñu bëggoon amuñu ko parce que ñun sa honneur bi soxaluñu li ñu soxal mooy ñu invalider candidature Ousmane Sonko te loolu la sénégalais yi duñ nangu parce que ñooñu lool mooy objectif final bi su fekkee ne noonu rek honneur kese la mais kon waruñu waruñu indiwaat li nga xam ni day téye Sénégal pendant une journée borom moto yi jakarta yi du ñu liggéey banques yi du ñu tijji ki waroon dem du ñu dem économiquement nu perdon beaucoup pour des journées yu nga xam ni ba pare mobiliser police ak gendarmerie mille policiers mille gendarmes yu nga xam ni ku ci nekk danga am sa honneur mais loolu sax atteinte à l'honneur des gens la. c'est-à-dire au fond policier bi dafa waroon dem defi euh, enquête pour découvrir kan moo euh, rey imam Tall kan moo rey nangam nga mobiliser ko ci buntu kër mu toog fa finalement ñu ni procès amul. imam bi wax jàpp ne dafa dafa wax yëpp la non imaam imaam euh, Tall laa wax. non imaam ratib bi wax bi ratib bi c'est-à-dire moom mu indi coow li parce que li mu wax mooy que ni eh, ku ci dee nga jëm. coow li coow li na kur ni c'est-à-dire est-ce que wax jooju wax ju wax jàpp nga ni tey. wax loolu laa euh, nga dama bëgg ci ci ci mbir. que moo waral moo waral wax ji laa bëgg dellu si parce que. imaam. raatib mën na interpréter nu mu ko neexee. man mën naa interpréter nu mu ko neexee mais dama ni interprétation yi ci Sénégal mooy indi coow. ndax boo dee interpréter da ngay interpréter sa akulaay ta la parce que yow l'islam ngay ngay jiite. yow mënuloo wax ni ku dee ci manifestation li koy dafay jëm safara. moomuloo safara moomoo àjjana. c'est la première des choses. premièrement deuxièmement kilifa nga. cest à loolu dafa yàgg Sénégal. Mhm. li nga xam ni da ngay gis nen nga ni du nen de lii doj la waaye ma xool sax est xam nga ni nen la. Mhm. loolu mooy problème mu Sénégal am na ñu bare ñu ngiy wax na jàmm am na jàmm am mais jàmm ji ki ko yore ñëpp xam nañ ko. Mhm. ki nga xam ni dañ ko dénk suñu réew depuis 2012 ñu ne ko doxalal muy doxal ba 2019 mu gagné. doon xeex troisième mandat 2011 mu leer nàññi mu dem ba toog ñu jox ko réew mi mu wax nii xeex bu mel nii dootu fi amati parce que y a eu des morts. Mm-hmm. pour renforcer loolu mu dem ba 2016 jonkan fu nekk joxe kàddoom ni man de dama bëgg def référendum pour. verrouiller la constitution ba nga xam ni wóor nañu ni coow dootu fi am. Mm-hmm. mu dem ba deux mille vingt trois mille vingt quatre di bëgg ñëw. Mm-hmm. prononcé wul waxul dara. ba pare di dàq ay nit ngir loolu. léegi diw def nu nga xam ne mu ngi acharné wu ci benn homme politique mais loo kooku moo indi coow li mm-hmm. kooku dañ ko wax ni que hey diw mu ne ah, ñu ni que dañ la dénkoon suñu réew 2023 jot na fii mu ne yow li waroon doon sa itte mooy nga euh, euh, évacuer les affaires courantes mm-hmm. parce que yow 2023 2024 da ngay dem bëgg que parce que moom moom. moo yor ci moom ci affaire candidature moom moo yor cëggal gu yam comme ni ñu ah, loolu mooy problème neexee bu ko neexee toog ba heure bu lu tax ngeen bëgg euh, euh, euh, déclarer ay candidature jàmbur par force kii dafa war a dañu war a xam ba xam dafay dem war a warul dem alors que ñoom am nañ seen ay benn programme wala am nañ seen noo xam ne si nii tey noonu la ñuy taxawale seen seen coalition pour mën a xam kan mooy dem wala kan moo dul dem ngeen bëgg leen force est-ce que loolu tamit nekkul benn dictature boo xam xam koy def yéen yéen opposition bi ci dictature boobu yëpp koy def même Benno Bokk Yaakaar mais cest à <laughs> am na ñuy wax président na wax mhm. Idrissa Seck mii dafa ni président na wax mhm. dafa ni du ko nangul te Benno Bokk Yaakaar la nekk mhm. ak ñeneen ak ñeneen kon coow loolu bu fekkoon ni deful benn acte bu wanee ni dafa bëgg def troisième mandat kon kenn du coow Moustapha Diakhaté dañ ko dàq acte bi mooy dàq ay nit yu ni kii de mënul def troisième mandat maître Moussa Diop wax ka ñu dàq ka loolu wax mhm. il a posé des actes qui montrent qu'il veut faire un troisième mhm. bu fekkoon ni posé wul benn acte kon du am problème ba pare boo dee dem comme ni mu ko waxee woon ci kanamu sëriñ si mhm. dafa war a taxawaat balaa balaa balaa dix mois nii ñu egg dix mhm. dernier kii moom dafa war a wax. mais nee na moom su su mais en décembre rek su jotee yàggatul non ah. amul bu jotee amul bu jotee. amul droit naan bu jotul c'est que amul droit amul droit il n'a pas le droit de faire un troisième mandat bay bay jot ak jot moom ça ne dépend pas ñu ngi koy bëgg may lu ëpp président Macky Sall li ñu ko bëgg may dafa ëpp. Mhm. moo wax ko mu leer naññ moom amul pour di décider dialogue c'est pas à lui de décider. moom li muy war a wax mooy moom bokkul ci troisième mandat du ko def benn parce que loolu day jur coow ñaareel ba ministre de l'intérieur mu dindi ko fi sànni ko fële ni ko tu es ñetteel ba mu teg nit ñi woo leen libérer tous les détenus politiques ñeenteel ba mu woote dialogue pour ñu fexe réew mi ñu teg ko ci yoon ki war a taw toog mais d'après ni mu waxee président bi mu ñeent yooyu la waxee ni mu waxee ci sortem bi détenu politique yooyu nga wax moom jàpp na ni moom du ay duñ ay détenu politique mais ay nit yu doon def ay ñaawteef ñu jàpp leen ah mais moom lu mu jàpp waaw moom moom lu mu jàpp te nee na moom munu ci def dara parce que dossier bu nekk ci justice mais lu mu jàpp ak liy dëgg exécutif bi mënu ci dara mais exécutif mënul dara ci dossier bu nekk justice mm-hmm. pourquoi Ahmed Suzanne Camara mm-hmm. woote saaga ni nañu raw diw kenn convoqué wu ko kooku ban justice la pourquoi Aliou Dembourou Sow taxaw ni day bocc jaasi pour troisième mandat kenn dégluwu ko. pourquoi à l'Assemblée nationale. non mais même bu dee assemblée nationale député bi la muy wax moom la foofu lañ koy ñoom la ah. mais ñoom la. waaw moom assemblée nationale kenn mënu ko euh, député kenn mënu ko jàpp. ci la ah, wax ci assemblée nationale ah da nga fàtte jàpp Ousmane Sonko te mu nekkoon député xanaa. bi ñu koy non cest li mu def ci biir assemblée nationale la mu fa wax moom kenn mënu ko cee jàpp. non li mu ah, fa wax lañ ko jàppee ci biti la. li mu fa wax bu fekkee appel à l'insurrection la mën nañ ko jàpp lu leer laa la wax. biir assemblée nationale mënoo fa toog di wax naan képp ku fi déconné dañuy lay rey sànni la ci géej gi jën yi lekk la. Ahmed Suzanne Camara taxaw na taxaw na non non non foofu daal bi non non non non je suis pas d'accord non eh, xam nga dàggasante politique dàggasante la dàggasante politique yéen fa ngeen di nekk yéen tamit di non dama lay wax dàggasante ah, politique ah. demul ba ci ñu rey la mhm. rey la mooy appel au crime mhm. loolu c'est c'est criminel mhm. c'est-à-dire loolu kenn mënu ko tolérer dàggasante day yam ci euh, du troisième mandat du troisième mandat kii lekk na lii kii lekkul lii loolu mooy dàggasante mais rey bu amee ba egg ci rey kooku Euh, procureur dafa war a autosaisir te du moom kese Ahmed Suzanne Camara ak ñeneen taxaw nañ fi wax. Mhm. am na benn euh, euh, tukuleur bu fi taxaw presque wax fii lu nga xam ni véritablement mën na soulever xeex ci biir xeet yi yooyu yëpp kenn convoqué wu leen. Mhm. loolu moo tax ma ni la du problème mu justice problème politique la justice dafay équitable justice. moom bu amee doo jël sa dossier yi nga teg si sa sa coude bàyyil justice mu def liggéeyam mhm. moom dafay immiscé wu ci justice ñoo ñu muy wax ni c'est pas des détenus politiques Bassirou Diomaye Faye mais li mu wax loolu ñu jàpp ko am nañu ko wax lu gën a garaaw fuuf fuuf fuuf te kenn jàpp leen loolu mooy problème deux poids deux mesures kon justice amul kon ñii c'est des détenus politiques et le monde entier sait que les a eu à prendre ce sont des détenus politiques premièrement deuxièmement mhm. ce sont ñu fekk ngay dajji boutique tamit mën nañu est-ce que mën nañu ko tuddee un détenu politique. non bu jàmbur. bu lu wax xam ne si tey ngay daj. station euh, euh, Total yi nga nga toj. di jël tamit ñu jàpp la loolu nga di détenu politique la est-ce que tamit euh, mën nañ jàpp ne këru jàmbur ñu ba dafa am ñu ciy rax ay ay wëyu yoo xam ne si ni oh, dañ ciy rax pour man di def seen ay seen ay bagages ah cest am na ñuy manifester nag ñoo xam ne dañuy manifester pour Sonko mais am na ñoo xam ne dañuy ñëw pour def ay ñaawteef loolu wax naa ko fépp mu leer nañ mm-hmm. ñun kenn mënuñu jaxase yow dañ la dénk am réew mm-hmm. nga war a sauvegarder la paix et la sérénité mu am ñu nga xam ni dañu jóg ni d'accord uñ ci telle chose ñu ngi manifester mhm. yow nga war leen autoriser manifestation bi autoriser wu ko ñu jóg quand di dox di dem bi ñuy dox di dem nga ni juróomi nit yu taxaw wala fukki nit yu taxaw nañ fa sànni grenade lacrymogène mhm. te yow en ce moment xamuloo ni ci sa réew moomu nga nekk am na des million de chômeurs yu nga xam ne amuñu liggéey am na ay milliers de gens yu nga xam ni dañ leen libéré ñu nekkoon militaire mm. am na ay million de personnes yu nga xam ni dañ leen dàq ci entreprise loolu yow xamoo ni bomb social la léegi nga jël xosi almet def si mooy nga sànni lacrymogène ci digg nit ña loolu yow état yow yaa favoriser pour que bandi yëpp dugg ci biir di dajji ay Auchan di dajji parce que bu fekkoon favoriser woo ko parce que kan moo joxe ordre ordre bi mooy nga sànni grenade lacrymogène fi nga xam ni euh, vraiment dañ doon marché pacifiquement loolu moo indi problème bi léegi nag yow boo créer les conditions de l'insurrection mais mënuloo jàpp nit ni que danga def appel à l'insurrection parce que même nit bu defee appel à l'insurrection l'insurrection yow waroo créer les conditions de l'insurrection parce que yow la ñu dénk réew yow da war a indi condition de sécurité haute sécurité mooy lan encadrer leen leen bu kenn sànni xeer bu kenn sànni dara ñoom ñiy marche nañu jël seen responsabilité mais Aline Badara Mboup mu nga ne la ñu téye au niveau de Tivaouane mais kenn mënul wax du du détenu politique parce que lu tax mu nekk détenu politique mooy moom dafa demandé woon manifestation ñu ni telle heure lay commencé telle heure lay jeex heure boobu ñu dem ba mu passé heure boobu ñu joo ko jàpp ka c'est politique c'est politique donc te foofu amul benn ku ñu fa gaañ wala benn ku ñu fa sànni dara dañu manifester tranquillement mais bi ñu paree dañ ni kii se le cerveau du wër ndombo ñu jàpp ko te da xool ñi ñu jàpp se ciblé mooy les têtes de fille de Pastef am na ku ko doon wax léegi mooy ñi nga xam ni am nañu dara daraja ci Pastef kii wër ndomb la kii nemmeeku tuur la kii il a la communication kii il a la sécurité ñoo ñëpp nga jàpp leen ñi nga takk leen bracelet di leen yëddu di leen déglu ba pare ma ñëw ci loolu professeur Khadim Rasoul jéng maa ngi maa Thiam maa ngi lay nuyu je crois que aba Adama le journaliste Adama Gaye wax na lu leer nàññ ci seen bracelet yooyu nañ ñu wax suñu milliards yi surfacturé rek bu ñu ko jëndee cent mille ni trois millions lañ ko jëndee ñoom noonu la ñuy doxee ah. président Macky Sall na wax ci loolu li gën a am solo mooy suñu xaalis bi ñuy sàcc guddeeg bëccëg di ko détourné mu leer nañ ñu mën a def ay enquête teg ci loxo ñu jël marché bi jox ko nit. mu jënd deux cent et quelques mille ni trois millions la jënde ça fait un manque à gagner à coup de milliards mais ñun loolu ba kañ. loolu ba kañ. d'accord ja mënuñu dialoguer ku nga xam ni. mais dialogue bi nag dialogue bi nag c'est-à-dire euh, Birame euh, euh, Birame Khoudia c'est-à-dire la laaj te yéen tamit à chaque fois ji. Ah. donc borom jàmm ji nag su leen wooyee ñëw ñu jàmmoo je pense que a war a dem ngeen wuy ji ko mais su fekkee da ngeen di ñëw leen da ngeen di wër jàmm ñëw leen ñëw du ngeen dem tamit lan ngeen bëgg. wax jooju ñi koy wax. mooy ñi nga xam ni dañu féete ndax ñëw leen ñu wut jàmm wax naa la léegi luy indi jàmm. Mhm. yow boo yoree réew même looloo ko indi mais il faut ngeen dem ngeen toog autour d'une kenn du fa toog. kenn du fa le problème mooy kenn du fa toog man Birame Khoudia Lo munoo jàpp sama ay doom ba pare invité ma añ pour ñu waxtaane ka dama naan leen bàyyi leen bu fekkoon ni dañu jël sa alal wala dañu jël ay kii. Mhm. mais wax naa la les têtes de file de Pastef lañ ñi nga xam ne dañu am importance lañ jàpp mais ñooñu bu ñu leen jàppee. léegi nan nga bëggee ñu dem toog di dialoguer te bàyyiwuñu ñooñu condition dialogue bi mooy lan. mais dialogue bi mën naa indi bàyyi ah. non du ñu avant ñuy commencer dialogue dafa naan man duma def troisième mandat benn ñaareel ba détenu politique yii yëpp wàcc naa leen. Hmm. ñetteel ba ministre de l'intérieur bii nga xam ne ñëpp a xam ne dafa far ñu dindi ko ci élection yi génn ko ci complètement ñeenteel ba ñu désigner seen candidat ñoom. juróomeel ba ñu bàyyi acharnement yi ñuy def ci am ay om politiques yoo nga xam ni ils ont le droit de se présenter Sénégal ak Afrique choisir leen. Mm. ñu ni leen dañ leen di wutal pakk pakk bu nga xam ni du ngeen dem euh, plainte bu ñëw beneen tegu plainte bu ñëw beneen tegu mosul am ci Sénégal. loolu mooy condition yi ku gis nen ni nen a ngi loolu mooy condition yi. loolu moo tax ma ni la dialogue sax amul jàmm rek moo am cest à jàmm mooy lan bàyyi naa troisième mandat defatuma ko libéré naa détenu politique yëpp. supprimer naa kële euh, Antoine Diome dootul bokk ci élection yi yoonam nekku ci moom day res rek intérieur ba pare fexe naa ba nga xam ni euh, ñi nga xam ni dama leen di xoqatal yépp ci ay dossier naxasa xàndang dama koy teg fële man dama bëgg jàmm bu ko defee soxlawul dialogue dialogue bi xam nga su muy nekk mhm. fichier électoral bi ñi nga xam ne dañu war a jot seen carte d'identité loolu mooy dialogue bi mais dialogue bi les fondamentaux yi nga xam ne daf ca war a retirer moom moo ci teg tànkam mhm. Euh, ñetti tànku nit wala ñeenti tànku nit ba pare ni ko dawal loolu mooy problème bi da mm-hmm. bàyyi tànk yi ba pare ni ko dawal dawal mooy dialogue bi mais loolu mooy euh, euh, naxa sa xandang c'est-à-dire dama la piéger quoi gars yi du ñu dem mu leen di piéger waat encore te defe naa F24 wax nañ ko nee nañ ko bala ngay dialoguer déclarer sa non candidature en un troisième mandat parce que loolu moo indi coow li yëpp mm-hmm. origine bi racine bi loolu la il faut couper la racine du mal la racine du mal mooy la recherche de troisième mandat c'est ça la racine du mal et c'est ça qui a engendré tous les problèmes détenus politiques acharnement contre opposition loolu yëpp li ko indi mooy la racine du mal waaye waaye nañu dagg racine du mal képp kuy wax na nga wax Macky Sall ni que euh, mbir mi mooy euh, c'est-à-dire la racine mooy mooy mooy kii bi euh, reen wi. Hmm. mooy troisième mandat boo ko daggee rek bu ko defee garab gi. daal di dee. garab gi mooy coow li ci réew mi. Mhm. te reenu garab gi mooy troisième mandat na ko dagg. d' accord mais mais moom. jàpp moom moom jàpp na ni. Euh, tey coow li coow li cëfër cëfër li ngeen nekk lii yëpp euh, pétrole bi feeñ euh, moo ko waral fi mu ne li alal ji ci dégg yëpp fi mu ne moo waral seen seen seen seen maanaam ngeen di yëngatu yëngatu. bu bari bi bëgg au court court que court jot ci jot ci jot ci nguur gi. au fond man je n'ai pas mhm. yow jox nañ la réew. ni la fukki at ak ñaar nga koy yore yow dem nga ba jeexal wooy wooy na jamaa génn luy sa ci jamaa cest yow tombewul si sa reñ cest moom pétrole bi da ko fii bàyyi dégg naa nag fu ñu toog rek naan pétrole pétrole pétrole ñoom pétrole bi ñoom la bandiloo mm. mais pétrole bi dinañ ko fi bàyyi pétrole bi moomuñu ko pétrole bi sénégalais yi ñoo ko moom nañu bàyyi même nguur gii ñu leen jox ak xaalis bi naan président Macky Sall liggéey na liggéey na suñu xaalis la liggéey lan la liggéey. Hmm. moom dafa am lu mu liggéey. c'est un c'est un c'est un simple fonctionnaire moom dañ koy fay suñu xaalis la liggéeyee. kon bu liggéeyee suñu xaalis xaalis boobu tamit ay ay ay ay dafa laaj. dafa dafa laaj dafa laaj ay ay. ay ay maanaam ay ay dugg ak génn pour mën a génne xaalis boobu. parce que am nañu fi yàgg a jaar. ay yàgg a am ay président te mënu ñoo lijjanti xaalis bi mu dugal li toll ci xaalis bi mu dugal ci réew mi. non non non non ñi fi nekkoon lijjanti nañu xaalis. mais li jënd ne mais xaalis bi ñu toll parce que tamit il faut nga am benn benn benn benn crédibilité bi. il faut nga am benn il faut nga am loo il faut nga il faut nga mën a convaincre il faut nga nga.